soxna Kiné soxna Kiné ubbil sa micro asalaamaaleykum euh, damay rafetlu d'abord jotaay bi di leen ñaanal ndax euh, li may wax sànq sama benn xarit ne ko Sénégal ñun

duñ la jàngal xaala la xaala rasul li ngay xam sa diine du bari te boo góorgóorloo parce que man exemple sama bopp laa koy jël soo góorgóorloo ba jël kol teg ka sa bopp jéem a jàngal sa bopp lu bari si diine parce que man je tiktok réseaux sociaux lu si waay bëgg a jàng rek nga siy jàng di leen di leen topp yéen ak ñu mel ni yéen da gis ñu lay genre mettre en quarantaine sooy wax si mbooloo sax sey mbokk propre famille ne bidaa baaxul cirque baaxul nit warul dem si sëriñ genre dafa am nuñ lay beree day dem ba soo gëmul sa bopp mm-hmm. da ngay bëgg am neneen noo dundee mm-hmm. ah dañ leen di ñaanal leen encouragé mm-hmm.

bëgg def lu neex yàlla rek seytaan day ñëw taxaw dañ leen di encouragé di leen wax ni ñi leen di suivre ñi leen di ñu ëpp fuuf ñi leen toppul parce que Sénégal bëri na ñu réer mais jeunesse bi quoi qu'on di ñu ngi gindeeku ndànk-ndànk dama ne sànq sama benn collègue ne ko sama doom man sama taaw moom ëpp chance parce que macha allah il a que douze ans te day ubbi kaamil di jàng. dafa am chance su yaay peut-être bu liggéey hmm. bàyyi soxla àdduna yépp xool hmm. privé islamique bu mu ko dugal hmm. privé catholique la nekkoon sama doom privé catholique la doon jàngee mais dama mës a xëy dama ko daan yóbbu si daara alxuraan fii sama wet su demee ustaas na ko xul wallahu ahad allahu samad jurul kenn kenn juru ko bu demee école ñu ne on est des enfants de Dieu boobu période il avait sept ans mu ñëw ma maman moi j'ai pas compris ici on me dit que jurul kenn kenn juru ko là-bas on me dit que nous sommes des enfants de Dieu ma am idée ma ne i eh, xale bi kon maa ngi koy désorienté xamul fii lay taxaw wala fee génnee ko yóbbu ko privé islamique xawoon na metti si man ndax fay ba sax aw ma ko woon mais ma dénk ko suñu borom rek mm. tey alhamdulilah

parce que loolu lay lay même jullit mhm. gis nga kii ba doomam demee lan lañ ko waaw ko metti si man parce que <laughs> ma papaam nekkatuñu te bokkuñu li ñuy li ñu papaam dafay gëm tarixa parce que sëñ Fallou la ko tuddee lu mu metti metti su Touba jotee day dem yóbbu ko kon mhm. trois quatre jours bi muy def noonu si moom. man limay may dina jaxase lépp. su ma loolu dañ ma naan jullil nga bàyyi ko yàlla comme dañoo divorcé maa yor samay garde doom munuma jot indi ko ma bañee rek histoire lay doon te bi tam. metti na daal en quelque sorte pour pour pour clôturer metti na torop torop torop mais man damay wax tout le temps que ni lu metti moom ak diine mais dañuy tok sax pour sax ñun ñu ñu ñu conserver suñuy doom ci lolu histoire prophète man man man damay privé sama bop yenn yi si télé histoire histoire prophète ngay japp li rien que pour rek nga nga am si orientation bo len tek mais dafa metti yomb. mais nag am xam nga tamit bu fekkee nit dafa gëm bokkaale jëmbalu ci sëriñ. comme ku doom doomam doomam dem feneen di jàng ñu naan ko Issa mooy yàlla waaw c'est mais man man man je fais de telle sorte que ça saa mes bagnons ba ñëw damay fexe ba xool ci télé bi loo xam ni dañ lay dañ lay wax li yàlla yonent bi li li li ma tegal ko ko def ko ci hmm. pour def ko ci boppam di boole di julli tam di ñaan peut-être xëy na hmm. <laughs> su màggee li muy dégg chaque jour dina topp loolu mais pour vous dire que dafa metti man mii di wax bi ma koloo tegee kol sama bopp hmm. yalla la def seede sama jëkk ki ma taagool def mon est muril wala ma fase dafa ah, dafa man séparation de corps six mois li may wax nii ah, wallahi Oumar Sall dugg na fi may liggéeyee ma dab ko boobu divorcé gu ma ne ko ah hmm. man de damay dund lu metti hmm. ndax damaa def nangam sama borom kër ne ma nangam munuma li nga jàpp mooy dëgg ma hmm. toogaat six mois mu def ak man séparation de corps di woo ay jigéen nii ma kay gis pour ma dindi sama kol mais yàlla suturaal ma dindiwuma sama kol alhamdulilah ma dugg sasi ma yàlla boole borom kër goo xam ne da doon wër ku muuru loo xam ne dara lu ñàkk fayda am ci diggante dafa jël sama collègue na ko dama soxla ku muuru kooku nag ah am na koo xam ne muuru na tey yàlla def na alhamdulilah ala kulli xaal maa ngi sëy kooku mu xam sama valeur ufal ma sama njaboot gën a xam sama valeur sax fa ma jóge moo tax parfois damay wax ni soo gëmee yàlla bàyyi kook sa bopp ku ko ñamul nag mënoo ko xam parce que tolluwaay la te iimaan am na lu mu dul nekk si yow lu toll ni pepp suuf lu bëri yëg-yëg boobu doo ko yëg kon ñii nekk di di di leen saaga yéen di ñu saaga sax laay parce que man fi yéen laa boole sax bopp donte nag xaw ma dara si diine damay jàng rek mais man su ma sañoon si yéen laay bokk ñi nekk di waaw di di di ñooñu dal, nañ leen ñaanal yàlla yàlla soppi leen ñu géndeeku si lëndam ñëw si leer asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, waaleykum salaam wa rahmatullahi wa sama jigéen waaw sama jigéen sama jigéen balaa ngay dem dama la bëgg dénk alpha ma dem tuuti rek ma dénk sama jigéen bi tuuti gis nga yàlla ñi mu gën a bëgg mhm. ñoom ñoo ëpp natt yu mu leen di teg ndax baatu nat nat nat yàlla moo ko firi wolof moo ko mhm. dañ lay nat mhm. yàlla dañ lay nat plus nga koy jege mhm. plus nga koy jege plus mu lay gën a teg ay natt plus say dara day jóg dëgg la jigéen ñi yàlla gën a yëkkati bokk na ci Mariama salaam Mm-hmm. te Mariam alayha salaam. Mm-hmm. yàlla teg naka nattu boo xam ne yow tegagu la ka. la. xam nga jigéen boo xam ne nga nekk ndaw nekk doomu kilifa. Mm-hmm. yàlla nattoo la ëmb boo xam ne kenn xamul kuy sa baayu doom. dëgg la. juróom weer nga toog ñu lay xas. di la gaarawaale. nga nekk ordre du jour. ah. dëgg la. lool ana moo ko gën dëgg la de. bu muñ loolu. Mhm. tey ba léegi yahudi dañ koy xas naan ko doomu yoon. dëgg la. ah. dëgg la. ñu sosal ka sosal doomam. Mhm. lépp bu muñ ko yàlla yëkkati ko. dëgg la. jàng isam histoire jigéen jooju nga xam ne moo doon jabaru Firawna. na waaw jàng naa ko. Asiya jabaram. waaw. jëkkëram moo yeesoon moo jëkkër ci kaw suuf. dëgg la. mais soxna si si sangu aljana yi lay doon. incha allah. bon kenn suñu ku su nekk. muy góor muy jigéen. Mm-hmm. yàlla dafa am fu ñuy yemalee. Mm-hmm. muy ci jaamu yàlla. Mm-hmm. yàlla fu mu tuddee yàlla yu góor yi. dafa jaamukat jigéen ñi. Mm-hmm. bon yàlla te la gën a bëgg sax lay nattoo. dëgg la. jigéen sëy la gën a bëgg. Mm-hmm. sëy mooy jeexaatu jigéen. Mm-hmm. moo tax fa lay yàlla di gën nattoo jigéen ñi jigéen ñëpp ñi may déglu nag ñu xam loolu. bon ku ciy sëy. na xam ne ni moom lii muy def jeexaat la yàlla mën na la nattoo góor gu ne. waaye bu demee ba bëgg la xiirtal ci mooy yàlla comme dindil sa xol yi ma jox la nga xeesal dindil sa xol yi ma jox la nga def nangam nag nangam bul ko ci topp mm-hmm. ndekam sa tay dina jur juróom mm-hmm. ëmb la juróom fi weer moomu la kooku sax bu demee ba bëgg la mm-hmm. xiirtal ci loo xam ne yàlla bëgg ko yàlla dafa neen falaa tutee awma bu leen leen topp waaye na nga rafetal jëmale ci ñoom ci dund yi àddina yàlla dafa wax ci alxuraan dëgg la waaw boobu nee nañ yàlla boobu nee nañ lu mu ci teg mooy wa bil waalidayni ihsaanan ihsaanan kon yàlla dafa ne jaamu leen ko mu toftal ci waaw atfu mu toftal ci jaari wayjur toftal ci keneen am na loolu lépp ñaari wayjur wa in jaahadaaka ala an tushrika maa laysa laka bihi ilmun falaa mm-hmm. ñaari wayjur ak lu ñuy ko war yàlla mu ne mm-hmm. digaloon nga def lu neex yàlla bu la. waxuma laa euh, mhm. bëgg rek def woon na metti woon na. parce que xam nga soo nekkee jirim metti woon soo nekkee jirim gisoo yaay gisoo papa nga gis sa borom kër kese xam nga mu mu nekk sa wéttal nga nekk benn doom xam nga genre xamoo kenn moom ngay xam mu ñëw def loolu def la six mois abandonné mais man yàlla daf ma li ma wax dañ naan booy dund épreuve soo soo yàggee dund épreuve da ngay am sax da ngay dëgër ma dëgër rek mhm. dindil wala ma fase ma ne ko fase ma parce que période boobu mu ngi toog di chômer sept ans ma muñ ko man maay liggéey maay fay appartement maay fay jàngu xale yi dépense tout ma ne ko fase ma bu dee rek je suis prête fase ma taxul bu fase ma sax toogaat nañ mu gindeeku baalu trois ans mais soit yi ma xëyee damay koy xoolee bët dama naan kii est que dina ma gidee bokk si góor ñi dimbali seen soxna ba mu dem aljana xam nga julli li tax nag ma bàyyi bàyyi dëgg dëgg dëgg mooy weeru koor su ma weerloo woon samay doom parce que boobu sama taaw sept la am su ma liggéey jee da koy jox mu na ndox mu naan ne ko sa yaay dof la su tasee xale yi ñuy wallaahi xale yi ñuy dem jàkka ja daf leen wàññi ne leen dañuy jommi ma ne ko ba jamono sotox léegi mus nga gis ko ànd ak jàpp jommi <laughs> damal nga laajte ko ndax nit mus na jàpp <laughs> yëkkati loxo wax ashadu an la ilaha illallah ba pare mu jommi amul su riiree no, no, sama <laughs> non non non gis nga affaire yi sooy wax billaay mun nga si bind livre man chaque jour dama leen naa man sama àdduna mun naa si bind livre weeru koor ba ci gu nar yow sa doom man ma toog jàkkaarloog moom nii muy lekk lekk foofu nag laa ne laa man nag koor la woon man naafi laa ko nag ne su ma naafi laa dama wax yàlla yàlla nag ma tàqale kii te mu sedd guy yàlla dégg ma souffriruma ko benn jour musuma ko souffrir et pourtant def nañ quinze ans de mariage mais musuma ko souffrir parce que à un certain moment de la vie dama leen koy wax faut savoir dire non dangay ngay tënku si seytaane après da ngay dee dem safara àdduna bii dafa éphémère nga xëy di gis ñàkk yaay ñàkk papa ñi la yar nga gis leen ñoom ñëpp ñu génn àdduna bu la yaay yaayul et pourtant Oustaz Alpha man mi di wax ak xam nga lu teg lu ma teg loo kol sama bopp mm-hmm. maam Abdou Aziz si gént mm-hmm. daf ma ne kinne kaay ma waxtaanal la ma génn mu yuuxu ma si gént gi demal teg kol jigéen buy sëy day muuru di yuuxu si gént gi te boobu bi may wax loolu mu ngi mel ni démb salon laa fanaan teg greffage fay douze mille bi ma yeewoo di teggi greffage bi sama jànk bi ma nekkaloon neen dafa tiitoon dafa foog ni dama dof loolu moom ma tiital man loolu laa tegee école mais avec le temps ma gëstu am di ànd ak li naan fréquentation yu baax am benn groupe bu ma bu ma bokk bu tudd les voilées ma si dugg di xool di leen suivre di suivre dem nag ba teg tarixa na le di mu sunna alhamdulilah waaw tonton Ismaila tonton Ismaila dañu coupé dañu coupé dañu bi dañu yaakaar da ngay publicité de dañu coupé live bi dañu yaakaar da ngay publicité Ismaila Ismaila kii sa gazette pam bi kontaan bi bu mu tax bañ coupé <laughs> bi